yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. jërëjëf jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. noo ngi leen di nuyoo fii ci grande mosquée bu Touba. ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mu ngi ko fiy taxawee ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha Bachir. Euh, muy liggéey bu am solo boo xamante ni moo leen ko sant te lépp loo xam ñu ngi koy defee itam li nga xamante moo di ndigalam da ciy jiitu ba noppi ñàqam jiitu ci. tey jii nag ñu fegoo ci ak délégation bu am solo délégation boo xam mu ngi bàyyi ko ci président Serigne Boub maire de Kaolack président euh, ki nga xam moo di responsable bu kiwu CCBM mu am taxawaay bu am solo bu muy taxaw ci yoonu Mouride. rawat na fii ci jumaay Touba rawateete na ci kuréel bu am solo bi nga xam ne moom la fi sëriñ teg di daayira Moukhaddamatoul Khidma mu fa waroon fee ñëw ñëwoon tey mu am ngant yónni fii délégation bu am solo sëñ Gallas Diop jiite ko ñoom kadd yoo xam bëgg nañ ko fay yëkkati ci turam ginnaaw bi nga xam ne fekke ngeen waxtaan yi fekke li nga xam ne moo di ndogu yi wër leen ci barab yi nga xam moom la ñuy euh, toppatoo ci jumaa ji te daara bi di ci son coono bu am solo euh, di ci woo taalibe sëñ Tuubaa yi nga xam ñoom tawfeex ñu dugal ci seen ñax loolu ngeen fekk ko yéen ñëpp euh, di leen dalal leen tatagal di am mbégte kontaan baax Euh, ngeen teew si ci woote woote bi nga xam ne ci lañ leen woo am kaddu yu bëgg a yëkkati sëñ Galas asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur ñi ngi sant euh, euh, Serigne Mountakha xalifatul am di di sant mboolem taalibe yi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk ci jumaa ji Euh, mi nga xamante ne bi ñoom ñoo yore organisation jumaa ji dañ fay ñëwoon nag ci teewaayu euh, président Serigne Mboup euh, maire de Kaolack di président groupe CCBM mu yebaloon ñu fi ñu ñëwoon di teewe si ndog yi nga xamante ne mooy bés bu sell bi muy laylatul xadar yàlla suñu borom dogal bi ñu yebalee <coughs> ñu ñëwoon fi moom jaaroon na fi fan yële ci ginnaaw gis na liggéey bi bi mu gisee liggéey bi itam waa daayira Muxaddamatul Xidma mu bëgg cee barkeelu ñu yaatalal ko ko mu ngi leen di sant di leen gërëm ndax lii day lu am solo loo xamante ne mu yàgg na bëgg la biñ ko ci yaatale itam mu barkeelu ci ngir liggéeyal sëñ Touba léegi bi ñu ko jaaralee ci ñoom wax dëgg yàlla rëccu ko tey mu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam yéen a ko boole ci li nga xamante ne ma ne barkeelu ci liggéey bi liggéeyal sëñ Touba. di sant bu wér da euh, délégation bi mu fi yabal nag euh, muy man mi ko jiite ak Pape Diop Dem mi moom nag dafa amoon ngant. waaye dafa waroon na ñëw teewe si bis bi waaye comme que tey moom mooy maire Kaolack dafa nekk foofu di euh, fête indépendance ah, indépendance bi 4 avril gi moom moo tax euh, mënta na ñëw waaye nag ngant la loo xamante ne bi mu ngi sant di sant baay Moussa mbay mi nga xamante ne bi moom moo jiite délégation bi yebal ñu fi moom itam di sant képp koo xamante ne bi daayira bu nekk ci xidmatul xidma ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam